waaw salaamaaleykum waa senegaal sax lay nuyu di leen xamal ni man maay Mbay Sàmb chef de village bu Bangaaj département de Thiès arrondissement de ba commune de ba di leen wax ni eh, yàlla dafa dogal ah, fii nu nekk ci Bangaaj dañu fee am bafon boo xam ni dañu ciy liggéey di ci def maraîchage di dem euh, Thiès lu ci bari kaani basante supome lu nekk ba lu ñuy béy rek ak soble dañ koy béy di ko yóbbu foofe waaye li nu manqué tardeel nu mooy ndox bu ngeen xoolee gis ngeen teen bii ki ci biir gis ngeen xeer yiy jale ci biir teen bi la jóge te ay nit a koy defal boppam ah nun nag noo ngi tàllal suñu loxo di wax président de la république fii de lépp lu ñu man ba mu falu def nañu ko lépp lu ñu war a def def nañu ko pour mu falu sunu bëgg-bëgg sunu soxla mooy ndaw yi ndaw yi nekk Dakar ak feneen ak feneen bo ndawul bangaaj bokk ci li ci ëpp ñu ngi ci xur wi di liggéey kaani goo gis ñu koy teg ci oto yi di ko indi caaro yi te boo demee pàkkub yi boo laajee Mamour Sy mbaa nga laaj mbay mbay Sy bi dina la leeral lii ndax ñoo fay koog yi ya nga xam ne suñ demee moom la ñuy teg kaani ga ci loxoom ñu di ko jaay eh, ñu ngi leen di xamal ni eh, eh, émergence bii nga xam ni moom la président de la république di wax su bëggee mu sax ci ñun nañu nu jàppale ba nu am ndox ci xur wi ndox mi doy nun ndox moonu manqué gone du fi jóge dem nun ñii di ay mag noo ngi leen encadré gis ngeen ma ni sama tani bi maa ngi ci tool yi taxawu surga yi pour ñu gas teen bi ndox mi am ñu mën a continuer seenub liggéey ginnaaw loolu ndox bu amee liggéey am te amoo yoon woo jaar pour jaayi li ngay li ngay béy it tardement la noo ngi nii diggante Fandène ak Bangaaj ñetti kilomètre képp la godorone nañu ko ba fàndeen dagg ko fa talib bu xong sax amu fi te it moo ne eh, fàndeen képp du département Thiès kon bu nun ki ciy wax sax mooy sunu responsable départemental muy Augustin Tine nun ki nu ciy wax mooy Augustin ndax ginnaaw moo yilif département bi yilif commune bu Thiénaba la gën a jaadu mooy su defee ab tali ba fàndeen war na koo jàllale ba fañ ko nattoon mu yegg fa waaye fàndeen lañ ko yemale pour nga dugg ba ngaaj suuf si bari na pour nga dem ba ngaaj yoon amul lu nu man di am ci xur wi bu nu transporté ba dem dakaar lanu ca war a am du ko am kon nañu nu jàppule ñetti kilomètres yi des fii wuti tuubaatul nañ ñu ko defaral mën nañu ko te it nag eh, mbaam dafa gàtt waaye ci jur gi la li nu war lépp noo ngi koy def ci ci ci ci ci réew mi kon war na lii sunu warigar ci réew mi ñu defal nu ko. xeer yi ngay gis lii jale lépp ci biir teen bi lañ ko jëlee côté bii ci sama kanam xeer yi fi nekk moom it ci teen bi la génne te nit la ñuy fay muy dugg ci biir di ko gas lii metti na. saa bu nu demee ba war a liggéey boo deful lii doo liggéey te it mënunoo tëdd mënunoo dem gone yi duñu dem. nun ñi mag ñi mënuñoo génn kon dañ leen di jàppale ci lii gis ngeen tool bi nii soble beeg su bi dara téyewu ko lu dul ñàkk ndox nañ ko bëggee noo ngi sant nag di gërëm wasalaam